jaajëf sama gars yi maa ngi leen ziar bu baax a baax di leen bëggee jili teer lay kay messi takke mëne fu ne tey nag dañ si Naré P maa ngi fii pied unité 15 fas yéene waxtaan ak moom e, ci avant muy yegg si Dakar ak bi mu yegg see Dakar di waxtaan ci pré album bi nga xamante ni moom la génnee e, misaalu Kiraama loolu yëpp leen si ñëw léegi-léegi mais avant lool dama koy jox mu nuyoo Naara na kom yaaw yaaw yaaw shout out to everybody Naré P right here Buur na di place to be di jaajëfal ñëpp ñuy seetaan à travers Equivox TV bang jaajëf Naara euh, dañuy dugg ci biir waxtaan bi mais avant ñuy dugg ci biir waxtaan bi carrément ci biir projet bi dañuy dugg ci kan mooy Naara Pi tey pour ñi la xamul. waaw Naara Pi day euh, ab ndongola bu jugee Kaolack di hip hop parce que commencé carrière am euh, en Pikine à Pikine en 2012 ak benn crew bu ñu doon wax Ref Level donc dellu Kaolack defar sama base ñëw Dakar dajeeg label bi ñuy wax Penku Side donc fa laa samay projet solo quoi. Euh, label bu ñuy wax penku saat euh, mais dañ daan dégg si say freestyle yi euh, fn ba 10 muy 1 ba 10 ci biir freestyle dañ doon dégg nga ciy tudd beneen label bu bokk tak penku saat Xurflex Music mm-hmm. pour man ñooñoo la signé woon indi la Dakar wala nu mu demee foofu. je dirais pas signé donc. Euh, on était ensemble on bosse on bossait ensemble bi ma jógee Kaolack ci label boobu laa njëkk a daj. Mhm. donc ñoom laa joobal benn deux ans mais y avait pas de contrat là-dessus. Mhm. donc joob nañ lu rafet. Mhm. donc après bi may moment bi may def euh, FN one to ten yi. ñoom ñoo production audio bi tout ce qui est enregistrement ñoom ñoo ko defoon. donc Penku Saad moom moo géroon vidéo donc bi FN bi jeexe la la la rejoindre Penku Saad carrément quoi. ok si biir FN one to boobu la ñuy dugg ñu gis nga def euh, série de freestyle dis yëpp bu ci nekk am vidéo yëpp tamit nekk ay freestyle loolu lu waral freestyle yooyu dix vidéo freestyle indiwoo ci benn sound thème. waaw parce que euh, moy moment juste bi may jógee Kaolack di ñëw Dakar. pour marquer sama existence. donc ñëw fekk fii ay rappeurs yu bari ñëpp di rab donc pour nga wane wu pour nga wane nii Kaolack nga dëkk. foog nga indi lu bees. donc moo tax ma inspiré wu ci FN one to ten freestyle one ba dis donc ñëpp def nañ fi freestyle mais amaana ni ma ko defee amagu fi woon donc def dix freestyle yu réussir yëpp ma def ko vidéo euh, ci ndimbalu penku saat ak looy studio moo réaliser vidéo yi yëpp donc c'était pour marquer mon existence moo taxoon ma def FN one to ten yëpp nekk ay freestyle yëpp tamit dóob yëpp nice public bi commencé la xam ñu jékki-jékki saay gis naara pii di def ay point de vie maanaam da toog sa néeg xool li xew ci actualité semaine bi wala weer bi nga def ko benn freestyle euh, une minute wala deux minutes jox ko gars yi ba mu commencé la may dara loolu nan la la dikkee. Ah, parce que suñu cër la euh, en tant que porteur de voix suñu cër la ñuy euh, waxal askan wi donc ni ma dikkee du nenn nu dul dafa rejoindre sama engagement dafa rejoindre sama détermination par rapport ak kàddu gu ma askan wi. donc voilà mënuma concevoir ma nekk rappeur. Mhm. donc di gis ay nonsense ci dëkk bi. Mhm. di gis ñi nga xam ne war naa leen teewal. di gis ñi nga xam ne war naa leen ñaax pour ñu soppi seen doxalin. Mhm. pour ñenn ñi leen di seetaan peut-être ak influence bu ñuy am ci dëkk bi. may seetaan donc euh, rôle bi ma ci am moo ma influencé à ce que ma def ay point de vue di ko def ay vidéo yu gàtt yoo xamante ni c'est des à l'aise boo koy déglu tu es à l'aise parce que ki koy def il à l'aise pour te donner des informations. donc loolu moo à ce que def point de ñu gis nga koy def lu bëree bëri bëri nekkul loo xamante ni chaque weer lay am mais da ngay toog ba benn temps en temps nga def ko euh, mais dañu gis tamit ci biir élection 2019 yi léegi saa gis naarab yi di def dirant campagne bi euh, chaque semaine wala chaque deux semaines bu génnee benn vidéo moom it di campagne loolu tamit lu war waraloon loolu. a mooy engagement bi rek ah parce que euh, voilà pour man rappeur situation bu am ci ci ci dëkk bi war nga ci mën a adapté wu selon say donc élection ku ko xam-xam ni dafay am yu muy àndal day ànd ak violence parfois. dëgg donc euh, caravane yi di gars yi di def day ànd ak ay ay ay actes yoo xamante ni gars yi sacrifice lañ ko woowee parfois donc. Euh, yoo sacrifier askan wi lañ ko woowee donc yoon la man aussi. Mm-hmm. en tant que euh, porteur de voix comme je le dis. Mm-hmm. donc ma ma ma ma ma ma ma ma soññ ci askan wi. donc ma bu ma koy def damay essayer di ko defee ci anam bi nga xamante ni. Mm-hmm. toujours day nekk ci dynamique gu créer. donc moo ne woon en tant que rappeur damay def sama sama sama sama campagne man aussi à ma manière. Mm-hmm. donc may def ay son yoo xamante ni euh, pour sensibiliser la chaque fin semaine dama ko doon génne ma def ci trois. Mm-hmm. benn ak Clayton benn ak Baxaaw ak benn ak euh, Korka. Mm-hmm. donc c'était pour ñaax askan wi wax leen defar seeni taxawaay. wax chauffeurs yi ñu dawal ndànk wax leen ñu denc seen doom yi. wax ñiy voté aussi nañ voté. Euh, ci ci anam bu mu gënee mucc ayib tànn kin yaakaar ni mën na leen mën na leen mën na leen doy njiit ñu ñu fal ko engagement boobu naka la la dikkee parce que gis nañ artiste bu engagé nga euh, dañ koy gis ci sa point de vue dañ ko doon gis ci campagne bi dañ koy gis des fois ci ci yi nga koy wane ci biir terrain bi Y'en a marre ñoo nekk noo for real engagement bi la dikkee Kaolack la la toppee wala influence bi ci kër gi wala nu mu na engagement bi moom ci sama yaay la ma toppee maa ngi koy saluer de passage. maire bi lan la <laughs> non maire bi la rek moom ah moom dafa engagé wu ci lépp. donc mm-hmm. waaw moom dëgg la ñu jàngal daal. Mm-hmm. donc ku dëkk Kaolack aussi. Mm-hmm. juddu euh, daj ci wal juddu daj ci kër ki crew. juddu daj ci mergi clen donc boo duggee ci hip hop boo amul engagement war nañ la ko laaj. donc loolu du jaas daal engagement bi par force la mënul ñàkk. Ah. ñu dugg ci biir euh, projet bi euh, misaalu Kirama avant misaalu Kirama dañ doon toog di déglu. Euh, kiraama kiraama kiraama ñu jeg-jeg saa nga indil ñu misaal lu waral changement boobu album bi lañ doon xaar nga indil ñu pré album. mbas bi rek mbas mi rek xam donc euh, am na liggéey boo xam ne boo ko bëggee def mu am ñu mu war a àndal. donc doo ko mën a def ak ak ak situation actuelle ak contexte sanitaire bi fu mu toll ak. Euh, voilà boo génnee album ak album liggéey bu mag bi ci nekk. Mm-hmm. ak album moyen yi ñu ciy def. Mm-hmm. donc génnee ko du am suivi. donc voilà mën na la handicapé ci lu bari. Mhm. donc looloo tax ñu ne comme déggoon nañ askan bi euh, boob ba léegi ñu ngi leen di dégg kiraama kiraama. Mhm. te mënuñ ko génnee wax dëgg yàlla parce que nit booy liggéey aussi. damay mhm. stratégie yooyu teg dafay am lu faisable ngay def quoi. dëgg la. donc voilà am na solo ñu ñu ñu dégg leen def ko. Mhm. par contre annulé te aussi ci ci ci programme la bokk. Mhm. parce que annulé bi annulation bi nekkul pour yàpp leen moo tax ñu koy def mais c'est pour mieux faire c'est pour mhm. jox leen loo xamante ni dina gën a mucc ay lu ñu foog quoi. dëgg la donc loolu tax ñu ne comme jotuñu génnee kiraama bi nañu génnee misaal. compal leen. def seen xel ni ba léegi ni kiraama bu ñëwee. dina nekk fi ko yaakaaree donc seen rapport du leen décevoir te je je pense que ni misaalu kiraama bi doy na firnde. Mm. misaalu kiraama bi euh, kiraama bi album bi ci boppam avant misaal bi sax album bi n'est-ce pas jooboon nga ko ba mu pare. waaw sa dem États-Unis loolu bokkoon na ci lu ko waraloon. waawe noo wala waaw jooboon nañ ko am na ay track yu ñu ci enregistré foofu. Mm-hmm. am na ay track yu ñu enregistré fii. Mm-hmm. donc dina dina dina dina dina am defaraat. Mm-hmm. dina am ay affaires yu ñu ci xoolal parce que voilà comme génne wuñ ko moment war a génne. donc euh, euh, moment bu jot rek dafa am ay adaptation yuy xew. Hmm. donc loolu dañ koy dañ ci jouer aussi par rapport ak suñu projet moo tax euh, ñàkkul ni dina am luñ ci xoolaat. par contre bu fekkoon ni fëgg nañ ñu tey mën nañoo génne kiraama bi ndax def nañ ko def hmm. nañ ci li war ba pare. Hmm. waaw lu la yóbbu woon États-Unis defi ay fit wala liggéey wala dem visiter wala lan. lépp ma fa yóbbu woon defi ay fit jouer ji. humainement parlant acquérir expérience. lépp moo ma yóbbu woon parce que beneen dëkk la bu bokkul ak sama dëkk. donc yeneen réalité ñoo fay am. et la ma fa doon def yëpp la ma fa doon uti yëpp yàlla may na ma ko alhamdulilah. <laughs> léegi dañuy desaat si biir projet bi misaalu Kirama génn na euh, gars yi ñu ngi koy déglu je pense que bu baax a baax euh, retour yi ñu ci am biir projet bi bi mu génnee retour yi nga ci am lan la. nice na. Hmm. niceul lu gars yi di wax. waaw retour yi ma doon xaar laa ci ah. Ah, parce que euh, man xam-xam laa doon wecci gars yi xam-xam mhm. laa doon liggéey mhm. donc xam-xam laa bëggoon jox askan wi mhm. donc euh, voilà munul ñàkk nag mu am ay critique donc mooy li ma expliquer chaque chaque fois pour ce qui est des critiques li ci positif dañ koy jël ñu defar ko ba mu rafet ñu gën koo performer suñu kiraama donc pour ce qui est des négativité vraiment amuñu amuñu amuñu temps wu ay détails donc voilà dañ koy teg ne mhm. avancé liggéey suñu liggéey donc ñu ngi ci am ay retours yu am solo mhm. vraiment kiraama bi dañ ci gis euh, misaalu kiraama bi dañ ci gis ñeent morceaux yoo xam ne thème la euh, yenn yi éco yi mun nañ ci ñëw mbaraan la euh, ak man ak sama gaay bu nekk saan bu naay saan man ak sama gaay gaay bëgg nañ ko trop. yaaw man ak sama gaay la yàlla boole ñoo ngi cool ñoo juddandoo jongandoo màgg demandoo school yow jàng ba bi buur tarde añ fent duul suñ gisee bariwul école buñ dajee ñoo ngi cool. Mbaraan ñoo ci ñu ñëw si Mbaraan. waaw Mbaraan day Mbaraan day <laughs> comme soo Mbaraan ah, Mbaraan ay daa war neex ay. dégg yaa pour moom mooy différence bi may ak ak sama diggante sama sama sama naataango yi rek. Mm-hmm. donc chaque fois damay essayer def lu différent ak ak li fii ne. Mm-hmm. donc mbaran comme ni nga ko déggee lu existé la lu am la new lu ma créé. Mm-hmm. donc waxuma ko aussi pour di ŋàññi sama sama sama siste yi. par contre daf ci am loo xamante ni foog ñu koy wax ni mu tuddee. dëgg la pour ñu mën cee jóge parce que amul solo aussi jigéen ñi rek ñoo fi takku ñooy mm-hmm. liggéey. Mm-hmm. ñoom ñooy am xaalis. Mm-hmm. ñoom ñooy teral seen yaay ak seen papa yi. dëgg la donc pour man xaalis boo ñàkk moom moo gën a am solo xaalis boo mbaraan. donc voilà ma waxee ko noo xam ne am na ñoo xam ne dañ lay interpeller non waroo waxee ni jigéen ñi mais noonu la tudd quoi parce que vraiment. amuñu ñun ñun ñun muus dañ ko woowee muus rek. wala ñu bàyyi parce que ci engagement boobu lañ nekk. dëgg la ñu ñëw tamit ci man ak sama gaay damay gis gars dañ koy dagg sax des fois ay parti yi di ko dugal si CSTEG yooyu noonu di ci commentaire saan boobu noonu fu mu yegg ne xaaroon nga ko. waaw xaaroon naa ko nag parce que man moom wax dëgg yàlla daf ma surprise saan boobu noonu. waaw parce que parce que parce que la boo xamante ni lu lu sama gars yi di dund everywhere la. Mhm. muy sama gars yi muy sa gars yi muy gars yi ñeneen yi. Mhm. donc yàlla moom li may wax chaque jour daf lay booleeg. ay ay nattu ci hmm. àdduna hmm. donc façon nit bu ne mën na laa booleek moom nga ngir nga ànd ak moom dëgg la donc voilà nit nag wax dëgg yàlla bu yàlla booleeg moom hmm. da ngay ànd ak moom ci ay sikkam. dëgg la parce que ku ci nekk dafa am ay sikk amaana yow mhm. sikk bi nga am doo ko xam. dëgg la donc looloo tax gars yi am na ci façon bu ne. Mhm. am na ay nit am na ay dof am na ay. dëmm xam nga <laughs> am na ay ko waxee dëgg donc donc noonu la demee quoi <laughs> voilà. <laughs> léegi ginnaaw bi ñu jógee si man ak sama gars yi pour ñu bañ a yaatal si projet bi carrément mhm. euh, kiraama bi nga nekk di job nii muy album bi. Euh, fornage yow bëy album bi bëri ay featuring featuring de taille ay grand yu bëri. bokk na loolu sax dégg naa ñu ne bokk na si lu tax génnewoo album bi mm. c'est que featuring yi si nara def grand yi ci bëgg a participer loolu da nga koy dëggal wala. mais bien sûr am na ay featuring de taille. Mm-hmm. am na ay surprise yu ci war a am. Mm-hmm. et lu ma ci gën a neex mooy featuring yu ci bari euh, ay ay artistes yu la la yoo xamante ni. Mm-hmm. dañuy ñëw ci ay artistes yoo xam ne incontournable ay artistes yoo xam ne c'est des vraiment artistes yoo xam ne Sénégal artiste bu sañoon. def ak ñoom featuring te li ci am gën a am solo dañ naan la booy. man maa bugg a def ak yow son. si bi dëgg la. donc loolu fierté la ci man. Mhm. moom mooy genre nit yooyu ma defal featuring ci ci ci album bi. Mhm. ay nit yu ma respecté la. dëgg la buur Saalum bi ñu ñëw si buur Saalum. lu waral buur Saalum. tout le temps dañuy gis da ngay naan maay buur Saalum Félès de Bandiagara yooyu ay kay yooyu lu waral loolu maanaam lu tax nga koy xëccu. Oh, Félès de Bandiagara bi moom. ci effet one to ten bi la génne woon. Mhm. te euh, je pense que amoon na confirmation falaise de Bandiagara mooy ku dugg ci man doo ci génn te nit ñi werante wuñ ci dëgg la romb nañu stade boobu. Mhm. donc Buur Saalum dëgg la parce que man maay Buur Saalum. Buur Saalum man maay Buur Saalum quoi man maay Sémou Djimit man maay Maba Diakhou Ba man maay. yee dañuy gis gars di xëccoo king. ku ci mel ni di Diba Ngaaka maay king maay king yow gu ñëw xëccoo buur. man Sénégal laa nekk man de buur laay xëccu ki ñaa ngi États-Unis ñun fii. ci waxuñu yooyu. <laughs> buur daal ngay xëccu. man buur laay man xëccoowu ma buur man maay buur. yaa ah ok yaay buur bi. <laughs> waaw loolu dina leer si kanam bu album bi bu album bi génnee. gis nañ avant euh, misa bis avant misaalu Kiraama gis nañ nga def benn freestyle mm-hmm. nga ci sanni ay pic. laxas si booy yëpp. saan boobu lu la ko def loo lu tax nga toog ba heure bi nga def ko. Ah, parce que am nga sound bi. est que du da nga bëggoon jaay woon def communication la. xam nga man xam nga ba hip hop Sénégal game bi. Mhm. pour man dañoo am problème mu définition pic. Mhm. man pour man ñoom li ñuy définition bi ñu am si pic mooy tooñ. Mhm. ku sànni pic mooy da ngay def son def pic tooñ. non tooñu ma man li may wax dëgg la. dëgg la li ma wax si freestyle boobu. dëgg la ko amul kenn ku sañ a taxaw di ko weddi parce que dëgg la. jubluwuma ci sànni picc mhm. ku ma ci wax ni lii lan nga ci jublu ma naan la dëgg la déglul son bi bu fekkee ne amul lu ci nekk dëgg nga wax ma ko dëgg yow retour yi ci jot après bi freestyle bi génnee jot nga si jot ay retour yoo xamante ni artistes yi nga doon waxal si ñoom la jóge wala non artistes yi ñooñ moom bu la dara métti ñooñu duñ wax hmm. amuñ lu ñuy wax lan la ñuy wax li tax nga xool leen ba mu neex leen ngeen ni ay day boobu leen génnee non mais parce que vraiment <laughs> <laughs> noonu la demee quoi. <laughs> loolu lañ génnee quoi. <laughs> loolu lañ <laughs> sa projet am na ñu lay ñu ne projet bi musicalul ak ñu bëri ñu ne Narra P bi doon xaar ak Narra P bi génnee projet bi bokkul loolu da nga koy dëggal wala. mais noonu la demee en fait euh, man li may wax e je confirme mooy albumu rap laa génne mhm. donc euh, ñi nga xam ne xam nañ hip hop. Mhm. dañu déglu rap. Mhm. xam nañ amul luñ ci sikki sàkkal ne lii. yaa rap. am na contenu. Mhm. am na ay instrumental yu rafet. donc mhm. li ci des mooy choix nit ki la. Mhm. donc sepa pas musical. c'est pas donc si tu me Pi album bi c'est pas musical. merci. Ah. la prochaine fois je verrai à ce que mu musical. nga jéem ko ok la. man li may bañ mooy Naara Pi. rabu fi rabu fi dara. mooy Naara Pi album bi amul contenu. dëgg la mooy Naara Pi rabul xam-xam. donc man loolu ginnaaw waxuñ ma ko ba léegi alhamdulilah léegi pour ce qui est leneen li nag. Mhm. donc comme ci neex am na nooy concevoir projet bi. Dip da leen défier yéen ñëpp ne bu ngeen ñamee yéen ñi génne projet génne leen li ngeen lu ñu exprimer seen projet nombre de ventes yi teg leen ko si taable ñu xool loolu da nga koy def wala. non man newuma ci loolu. newuma ci loolu. quoi man gars yi kii nañ album bi gars yi xool nañ ko bu baax. jënd nañ ko Euh, c'est-à-dire euh, gis nga man du ma stigmatiser du ma pour euh, créer ay bad buzz nan laa ko mën a wooye ou quelque chose comme ça duma wax lu newul ci man mhm. du ma wax lu ma deful mhm. du ma wax lu existé wul mhm. donc kiraama misaalu kiraama génnee nañ ko gars yi ñu ngi koy streamer ñu ko soxla ñu ngi jënd produit physique bi xam-xam bi ma ci soxla woon mi ngi véhiculé wu nit ñi ñu ngi koy ñu ngi koy jëriñoo and that's it loolu moo ma ci amal njëriñ. Mhm. xam nga ban défi laay laay laay nangu. Mhm. génne naa album yéen ñi génne album yëpp maa leen daa xarab yéen ñi génne album yëpp. kaañ mhm. taxaw ñu rab ku ciy défi. loolu nga soxla gaa yi ku ciy défi <laughs> waxuma kuy défi kenn ku ciy défi naa rab yi. défi ko ci rab. bul ma défi ci ay affaire de. streaming. wala ay affaire de snabal nañ ma wala man loolu ça m'intéresse doxo si yooyu quoi. non non non vraiment. donc ma ci parce que je gagne ma vraiment maa ngi dund maa ngi alhamdulilah quoi donc new ma ci album bi album bi mën nañ ko xaar kañ ci ci ci ci ci deux mille vingt et un bi ci kàttanu mu day yegg novembre deux mille vingt et un dafa sori décembre wala yow rek ma fàtt ma la <laughs> ñu ngi kiraama gars yi ñu ngi koy déglu mais gars yi fi mu ne nii kumpa bi mooy kiraama bi lan la war a nekk waaw stratégiquement machine bi mi ngi ñu ngi ciy waxtaan mhm. on ñu ngi concerté wu mhm. ñu ngi xool faisabilité bi mhm. xam ban moment exactement lañ koy génnee parce que ñun ñoo ko dig gaañ. ci booy ban dafa am benn saar boo xamante ni non. saanu mu ma toog jour te du ma ci wax booy. booy saanu boobu laa koy njëkk a waxee parce que lii dañ koy denc ëllëg muy bur saalum bi. booy saanu boobu bu génnee booy. ah. maanaam <laughs> façon bind bu ne gis nga ko. mais ni nga bindee saanu boobu noonu quoi. displiqué ci buur yeeg yooyu neem dropping yi ñu si def. xam-xam la pour wane ni maay buur rek. xam kon yow xam nga ni maay buur saan boobu moom nice na quoi sa bu génnee yaakaar naa ni gars yi dinañ nangu. dinañ nangu boobu ci album bi lay bokk wala avant album bi. nga koy ci album bi lay bokk incha buur Saalum mooy mooy moom mooy moom mooy. baal ma noppi sax naar mi ngi may xool pour ma noppi buggul buggul ma expliquer quoi. <laughs> non naar naar waaye waa ñu dem suñu liggéey waay waaw mais noonu la demee léegi naar. Mhm. léegi lan lan lan mooy li si kanam lan la lanu mën a xaar lan la. Euh, momentanément ci lu ñu nekk mooy misaalu kiraama bi communication bi lañ nekk. Mhm. doo mën a teg concert doo mën a. bon ñu ngi waajal def suñu suñu suñu awn concert ñu ngi waaj a produire suñu. benn show boo xam ne Instagram wala si télé yi. bon waaw dañ koy dañ danañ def show bi. Mhm. mais dina daw ci suñuy suñu chaîne ci plateforme dina daw mhm. fépp donc mais suñu suñu show la boo xam ñoo koy produiral suñu bopp. incha allah ci loolu daal ñu ngi ci dinañ def show bu mucc ayib show boo xam ne di nga ko seetaan. et eh, tu auras l'impression que ne yaa ngi stade Iba Mar Diop di seetaan concert ou bien yaa ngi. Mhm. yaa yaa ngi ci salle de spectacle quoi. ban message ngay jàllale ci Covid bi état bi xam nga problème bi dëkk bi. message lan la waaw sonn rek. Euh, sonn rek parce que mbir mi fi mu toll nii doo xam li muy nurool mhm. donc waxoon naa ko ci benn benn émission fële. Mhm. corona moom on dirait day bàyyi ba. au delà de vingt et une heures mu croisé ay loxoom génn ci mbedd mi di doxantu. di doxantu parce que man mënu ma comprendre enjeu bi. ci journée bi la gën a la gën a doy waar. Mhm. donc journée bi la marché yi di fees journée bi la transport yi euh, oto yi ci lay am ay ay ay ay nit. vingt ak seddaay bi sax di fekk gars seen kër. voilà man sama koñ fii nii waxuma la vingt et une heures. dix gis nga fii nii seddee. donc heure bi balaa heure boobu ni ñi fekk na ñu dugg seen kër donc dafa am incohérence bu ci am. Mhm. donc nañ dimbali nañ dimbali jaamu yàlla yi. Mhm. parce que wax dëgg yàlla tënk nañ ñu nu ñu yàlla tënkeewul. donc soxla nañu suñu bopp. surtout ñun nga xam ne vraiment euh, spectacle yi moom mooy suñuy moom mooy moom mooy moom mooy ci lañuy ñuy gën a am ay revenus mhm. donc ñu xettali ñu mën a nekk ci suñu liggéey d'autant plus que ñoom ñu seen liggéey quoi mhm. di ñaax askan wi aussi mhm. donc ñu continuer respecter mesures barrières yi comprendre nga vu que on n'a pas le choix. Mhm. donc am na wala amul bul jox sa loxo. Mhm. ginnaaw ba foofu lañ ñu foofu lañ ñu foofu lañ ñu voilà noonu noonu lañ ñu ci noonu lañ ñu ko noonu lañ ñu ko diglee. nan ko def rek. nan ko def. rek waaw toog xaar yàlla jàpp ci yàlla waaw. relation ak euh, chroniqueurs yi lan la. temps yi problème bëri na yi sa diggante chroniqueurs yi. loo leen def. aw ak ñoom benn relation. non mais da nga leen classe wala nu mu demee noonu. non mais chroniqueurs yi dama bi dégg nañ nga classe leen ci. waaw leen wax ni dañoo mën duul rek ñu di seen làmmiñ di la. ñoom ñëpp nga ko wax wala. non mais en fait. ku ci gis boppam duulu chroniqueur yu am jom laa wax. donc chroniqueur bu ci wet di nga xam li nga wax li ciy dëgg ak li ciy fen donc ki ci ŋàbbi làmmiñam di génn di wax mooy da ngaa mën fen ah, ñi ci waxul. mais bi ngay wax loolu fixé wu kenn joxoñoo kenn. loolu chroniqueur yu am jom laa donc j'ai pas waxuma ni benn chroniqueur donc mais am na si ñoo xam ne bu ñu weetee dinañ xam ne li ñuy wax ay kàcc la. ok ok kon euh, kon joxuñoo kenn ne moom laa waxal. non eh, aw ma seen time pour ne fii naan chroniqueur diw chroniqueur diw. kon kon am na solo. dama am dama kon Waarab 221 moom dama leen di jégalu parce que am na benn affaire bu ma leen jotoon def ñooñu moom moom maa ngi leen di bu baax a baax ñoom MBT. mais ñi si des moom naaj respecte ñoom ñoom it job bi mi ngi naaj yow diggante chroniqueur yi géré ko man sama yoon na aussi <laughs> man daal rab 221 laa mënoon jàpp jégalu naa leen mbat na xam nga. léegi man de samay wax maa ko moom. bu fekkee ni samay waxal leen di wax loolu dinañ gën a wax. Malaton booy may tugo booy mi ngi lay défier de. waaye je passe bàyyi <laughs> Aliou looy tàggatoo booy émission ban la. waaw <laughs> euh, maa ngi jaajëfal ñëpp ñu doon seetaan Equivox TV. donc Narappi la woon di leen. Euh, jéggalu bu dee am na lu dëng ci wax ji. Mhm. Euh, di di di di di di wax dëgg yàlla euh, rafetlu invitation bi. Mhm. donc bu dee am na lu ci rafet loolu lañ ci jublu woon. Mhm. donc ni leen wax ni misaalu Kirama mi ngi disponible ba léegi. ku ko soxla mën nga woote ci 77 802 45 ku ko soxla aussi mën nga ñëw ci kër gi fii nii. unité 15 wax dëgg yàlla unité 15 moom naa ni kër gi ñëpp xam nañ ko. donc boo fi ñëwee boo ko soxlaa mun nañ la ko jaay. site internet yi physique mun nañ la ko indil ba sa kër aussi. site internet yi. mi ngi ci plateforme yu mel ni Deezer musique bi uh, Apple Music iTunes. Spotify dugalagu leen dara YouTube non. maye ngeen booy maye leen booy. mais dañoo boobu mais yow yaa fi taxaw di lim projet yi ma gën a. Ah, yooyu yëpp dama ko maye maa nekk. projet bi mi ngi waaj a yàgg nag. respect. jaajëf everybody. yaa sama gars yi loolu la woon tey naara fii leen seet woon yaatal ak moom dégg ngeen leen fi teg lépp waxtaan nañ ci album bi waxtaan nañ ci démb ak tey. Euh, freestyle yeeg euh, li mu jot a def ci carrière am lu ci bëri waxtaan nañ ci jili der la woon from Equivox TV Galsen sama game rendez-vous beneen yoon ak beneen numéro ak beneen rappeur jaayef sama gaay beneen yoon mais naar bi da ñuy may benn freestyle avant ñuy dem. rab bu wow te nooy foqati say challenger prek nga may jaay mala la dàq ne ascenseur xay saalum saalum bi def na lëf di. violé na charte yi moom deful ni seen yëf yi <laughs> jéeli comparaison n'est pas raison dis donc éponge ak béton pour sa rappeur ak naara pi tu es <laughs> comme White House ak sa maison man damay fak rap ba mel ni dama dof man damay eh est-ce que du dama soof man léegi damay firi mboot ñi lim li baaw naan waaw utaleen paan waaw ku mar naan eh jibi soppil jéego bit bi putain sonn naa ci booyi oh héros yi ku mu neex sikkal bat man la aas aka mën a rap te gentleman Gambia dama leen bugga kirama bi dina leen cuqa aka mën a rabte gentleman if you don't fuck with naar piyam papin nag aka mën a gentleman man damay rab mu neex xol yu bon yu feex wax bi neexul bat man dama mën a rabte gentleman bang ah. yaaw man ak sama gaay la yàlla boole ñoo ngi cool ñoo juddandoo jongandoo màgg demandoo school yow jàng ba bi buur tarde añ fent duul suñ gisee bariwul école buñ dajee ñoo ngi cool benn tër ñu tëdd pourtant ñoo fi dàqoon tarde musuñ mën jàng mais kenn ci ñun jëlu ci ndaare